bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain wa man intahaja manhajahum ila yawmi ddin wa jaal kalaami rashida wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida سدد لساني نوّر جناني صف أماني وجد برائي إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته su defee kon day mel ni euh, ñu ngi saare sëñ Baye Modou Diop bi nga xam ni moo si am di Diop mii ñoo doon coordonné yëf yi ba li nga xamante ne danañ ko gëstu ci suñ ak ni ko topp dañ ko daal li ci ëpp bay alaaj Jóob Daaru Salaam moo ko daan wax maanaam ko bind leen li maa ngi ko gëstoo ci waxi sëriñ Moussa leen li sëriñ Mourou Soole mii yaakaar loolu moo ko baaxee fan yi ñu jàng kon source yi koy jëlee foofu la bàyyi ko waaye lépp boo xoolee day dellu rek ci mbindum sëriñ Moussa nga xam ni ku xam sa waay rek moo la ko xamal kii Serigne yi koo daroon kon danañ wax lenn ci jaar-jaar yi Alxaaji Góor Njaay def ci wàllu usra famille indi lenn ci alaaxa bi amoon Serigne Touba laata maam Cheikh Anta di ñëw te booleeg maam Cheikh Anta bokk wax ay jikkoom wax niñ demee Gabon yooyu daal mooy topp yi ëpp solo yi nga xam ne incha allah di leen waxtaan yu ku ne xam na ni alxaaji Mouhamadou mu ngi bokkoon ci usra boo xam ni famille boo xam ni famille diine la famille islam la ñu gëmoon yàlla boobu tabaraka wa taala la ñu woon avant suñ bi ñëw sëñ bi daal ñu ko toppoon ñoo xam ni daata mu ñëw it ñu ngi woon kenn baax waaye comme moom daa jàll baax na moom sëñ bi loolu ñoo dalee gën a defar nga gën a baax point bu am solo la woon boo xam ni daan nañ pratiquer diine daan nañ bàyyi xel yàlla ak yonent bi ci seen mbir yi def yëpp moo waral muy ko ci usar boo xam ni bàyyi lay jur waxoon ma ni moom béy ci man nga ni fa la bokk nañu waa diine lañ waa islam lañ waa ngor lañ waa jom lañ waa bëgg lu baax lañ waaye asay xamadin Jóob day ko ji day muur fi béy ci moo nekkoon waajuram bu góor sëriñ Modou Diop sëriñ Modou Diop moomu Modou Diop moom mu nekkoon waajur Alxaaji Bul Njaay Diop nekkoon kàngam ci diine ak xam-xam ak xam-xam ak ci alxuraanu karim ak bëgg baax daanaka sëñ bi woote. waajuram wu jigéen moo nekkoon. soxna Fatimatu Njaay moom itam même mook sëñ Maodo Diop ñoo bokkoon nekkoon ngi soxna su yàlla soo xam ne ku bëggoon lu baax la yàlla def ñu boole ko maanaam sëñ Maodo Diop mu am ci alxaaji Bourou Ndiaye Diop ak sëñ Mbaye Diop danañ ñëw ci kanam incha allah ak ñu bokk lii yëpp nag Baye Diop moo ko waxoon depuis 2010 boobu may nga si si gaawaan bi gane àdduna ci ñaari waajur yu baax yu sell yooyu noonu ah, Baye El Hadj Diop nee na ñu jox nag bàyyi nga xam ne ñu wax Serigne Sayer Diop ci bay ci Madinatu Bayt ci dëkk boobu noonu ñu jox ko nag mu ko jàngal Alxuraan karim ak di ko tarbiya ak foofu nag daa jige woon nag ku ñuy wax Mbacke Kajoor boobu daan na bari lu daan dem ci Seex Xaadim te Mbàkke Kajoor dafa dem lu baree bari léegi-léegi alay Mbour Ndiaye jug jug jug ak bëgg bëgg lu baax dina ràññee kenn baax léegi-léegi yenn saa yi Serigne Sayer buy siyaare Sëriñ Tuubaa ci Mbàkke Kajoor dara ñu bari Alxaaji Mbour Ndiaye ngir maanaam ak sawaram ci njàng ak bëgg lu baax ak teel a safoo jotaay yi noonu xel gi mu bàyyi xel jotaay yi nag mu waral la sëriñ Seer ak yóbbu sëriñ Tuubaa ci Mbàkke léegi-léegi sëriñ Seer laa pour mu dem yónni si sëriñ Tuubaa Alxaaji Mor Jaay Jóob moom dong mu dem léegi-léegi moom rek moo daan dem ci sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor waaye ci biir yónneen yooyu bari yooyu noonu ci la sëriñ dem maanaam ba am lu mu gis ci Alxaaji Mor Jaay Jóob ak pastéef ak jëfe ji ko sëñ seer di jàngal sëñ seer mag nga woon te kàngam am solo maanaam muy am lu mu def loolu alxaaji Mbour Ndiaye Diop ci moom sëñ bi ko boppam lool waaye fekk nag alxaaji Mbour moom booba xolam seey na gërëm na ci bëgg ñu bëgg suñu Tuubaa ak mooy ñi ko daal seen sell gi ak seen mbaax gi seen yiwe gi ak seen am taalibe gi mag ñooñu ñoo ko mën ñoo ko góonjewoon booba ba daanaka mujjoon na sax li ñu daan dem ci suñu sayar dawul bari daan ci ay suñu nit ak pool ñu daan fekkante moom suñu El Hadj Mounde Ndiaye Diop kon nag neexoon na suñu sayar lool mujjoon daanaka dafa mujjoon bàyyi ci sëñ bi moom waaw mujjoon bàyyi El Hadj Mounde Ndiaye ci Tuubaa ci Mbàkke Kajoor foofu it nee nañ El Hadj Mounde Ndiaye Diop kenn bëgg lu baax njëkk na fa jébbal ay loxoom Sëriñ Tuubaa dégg ko jébbalu ca moom donc buy jàng ànd ak sëriñ di siyaara ji sëriñu sëriñ si. bu dem maanaam ba lim gis ci mag ak sëñ bi day ko lool sëriñ boole wu sëñ bi mu dem ba mujj moom di sëñ Xadim ma Xadim Moodu Njaay Jóob loolu mu ngi xewal Mbàkke Kajoor sëriñ bi ko boppam lool mu xeeñ ci moom lool sëñ bi xam ak xir ak dogu ak ak iradatul faiqa tey bi xam bu yéeme la bu bu kawe lool ak it sëñ na wax nañ ci Mbàkke Kajoor la njëkk a natt loob dafa baax xam baax kenn ay xaj Mouride yow ni mu baaxee ak ni mu sellee ak ni mu yëwee loolu xaw naa àq ji yi si ñeneen ñeneen si tubaab xam ci moom xam ñi xelam ñi ñawee te baax te sell te mën a defar ci biir mag ñi ko xale ci biir boobu dana réglé ay bagages yoo xam mbir yoo xam ni mag bari mun ñu ko réglé ci si bi teel a koo nag teel lool teg ko boppam liggéey ko boppam lool di ko jox ay mission yu daan liggéey ci sëñ Tuubaa alxaaji Modou Ndiaye ginnaaw bi béy sëñ Seer boobu noonu ci béy ci yooyu fatara yooyu jamono nag yooyu jamono ci Mbàkke Kajoor ci la sëñ Gaawaan daan ñëw ci sëñ Tuubaa di siyaare si te ku ne xam ne sëñ Tuubaa sëñ Gaawaan amoon na mbaa sëñ Tuubaa sëñ Gaawaan amoon na kër Mbàkke Kajoor daan ñëw mun ngay jóg fere yi ak sawaram ak maanaam ni ko sëñ bi diggalee boppam ak ni mu yéemee ci wàllu liggéey bi si ngaawaan di ko di ko silantar baax a baax ci la wax suñu baal ma bëgg nga jox ma nga jox ma fere bi taay bi nga jox ma xale bi suñu ne ko moom mu tudd Ahmadou Ndiaye seen sayar moo fi indi si ngaaw ne ko kii de ni ma gisee mbiram ci biir fere yi de moom poids yeeg naa moom day mel ni mën nañoo def si ngaawaan kon moo demande suñ tubaab suñ rajo bu Ndiaye doo rasulullahi demandé demandé yàlla ji Sëñ Tuubaa réew mi na tawfeexu Sëñ moo demandé ci moom Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa jox ko loolu boo xoolee ak mbir la moo xam ni bu ñu ci am lu bari bari seen lu baax a baax Sëñ Gaawaan nan la ko nekk nii daan naa nekk nii alxaaji buuru moom maa ko laaj ku baax ki ku baax tee ma ko jox te maa ko laaj sama baax gis salaaxiyatuhu maam ni mu baax ga baax gi mu baax ak bëgg yi bëgg aw waaye am makaana boo xam ne bu kawee sëñ bi suñ ci la laajee sëñ Tuubaa dafa jox alxaaji nii mooy jàppale ci liggéey bi. te boobu boobu suñ gaawaan booba moom daan dem di ñëw di di sëñ Tuubaa li mu bëgg waaye gis nañ li muy li muy kii bu ànd moom dana gën a yéwén moo war a mu laaj euh, foofu kon moo ko njëkk a wax ko ko moo war a mu bëgg a mu bëgg di ànd moom di liggéey. ak njàmbaaram du ko Sëriñ Tuubaa nangoo loolu waaye dañ naa ko naa la ko jox waaye yow Cheikh ci kaw ay sart sart bi njëkk mooy bu dugg ci mbir te laajoo ko laajoo ko ci xalaat day laaj Mbour Ndiaye yooyu tam bu mu laaj xalaat mënut a joxoo ko ci xalaat yooyu tam ko si ngaawaan ba Sëriñ Tuubaa e kon xamoon kon alaaji mi borom borom xel la xel mu baax la xel daa am solo ci islaam demal ci alxuraanu karim li yàlla ay dénkaane lépp dama xel la ko dénkaane ma xam-xam li baax baax sax bu xel gungewul xam-xam mën naa jëkk mën naa bañ am solo xel dafa am solo lool suñ ne ko waaye nag maa bëgg looy def yow Cheikh demal laaj xalaat te Mourou Ndiaye mu laaj jox sa ñu tarikat mbir la moo xam ni euh, li sëñ bi wax léegi ni noonu la tari mu laaj mu laaj wax ko ko te wax la gën a rafet ak baax waaye wax nañu loolu lépp suñu tubaab wax yi teewul Alaaji Moodu musta jox suñu lu lu muy rëy bu ñëwee bari rëng-rëng danaa teg donte moo am na xel suñu tubaab boo xam ne kon sax am na xel waaye danaan daan teg ba suñu tubaab gaawaan laaj mu door a mu door a parce que indi xalaatam loolu dafa nekk ak tey la ak ak déggu taalibe bi ci la bokk loolu moo sabab alaaka du sëriñ Moodu Dia jóg ak seen gaawaan kon loolu ci Mbàkke Kajoor la boo xoolee li ñu wax léegi dañ ko boole ci nga tubaab yi leen boole ñaari boole ba ñett première boole bi mooy bii nii ci Mbàkke Kajoor te boo mag ñi fa lañ fa woon ànd ak boo xoolee seen wàccuwaay yu rëy yooyu waaye kii moom Singawaan tànn seen tubaab boole ko moom ci kaw sàtt yooyu noonu. Singawaan jël ko nag rey mu njaay nekk taliw bees Singawaan bàyyi ko ci Cheikh bi seen tubaab Cheikhul Akbar ñu ngi Singawaan. ñun ñii Singawaan jox ko wàccuwaay boo xam ni. bu kawe la lool def ko nag mu nekk jëwriñu donge yi alay mu jaay xam nga moom moo ko alay ji alay ji sëriñ wala wax kii Ibrahima Diop alay mu jaay Diop moo ko magoon moo ko si mu ngi rafet moom moo ko moom ñooñu lu ñëwee si Gaawaan nag en tant que di nekk mag yi mu def ko mu nekk raisan di atbaa moo jiite woon taalibe yëpp même si Moussa Ka sax buy tàggu gaa yi si Gaawaan ñu bëree bëri Amadou Ndiaye lay njëkk a tudd parce que moo leen magoon ndax Amadou Ndiaye moo yore Ibrahima ak yeneen yi demee noonu ngam jox ko wàccuwaay bu mag ngir moo leen gën a maanaam féete mag waaye sëñ bi sëñ bi jox na ko wàccuwaay boo xam ni bu ñu ko koy joxit bëriwul mag mu ngi ko boole yi mu boole alaaj mu doog si ngaawaan ngaawaan gën a feddiwaat euh, ko lool waaye alaaj mu bu ñëwee yi yooyu mel si ngaawaan ñoo ko nettali sëñ sëñ sëñ Babacar Mbaye wax na ko sëñ Yiri Jaxate wax na ko ni wax nañ ko nee nañ moom bi mu daa wormaal ñëpp wormaal suñu gaawaan wormaal suñu aafiya ma fàttali moom ngir lim gën a ñu suñu gaawaan ci mbokk da ko wormaaloon lool ba ñu ko woon sax saa yu jógee yaamay yaamay yaamay yaamay taxaw daa def na ko am na taxaw yoo xam ni ni alaaji ma fàttali taxawoo sëñ gaawaan noonu la alaaji ma fàttali taxawoo ko te ku ne xam na tawfeex yoo xam ne mën naa baax te sëñ bi moo ko moo ko moo ko téyewoon boppam fonk ko laa yor boppam waaye teewul daay ñëw warmal taalibe yépp te moo leen magoon te am na Sëñ Tuubaa loo xam ne ku ne xam ne ni mbir la suñ nga xam ne jël ko la di ko yónni Sëñ Tuubaa yi jotaay yi bëree bëri rajo Modou Ndiaye di bàyyi ko càqam di bàyyi ko ñaaxeen di indi ay yónnent yoo xam ni day bàyyi ko Serigne Gawane jëm ci jëm ci noonu suñ tubaab mas naa laajaat El Hadj Modou Diagne ma ko laaj ne ko dama bëgg sax nga toogaat ci man te jox na ko si ngaawaan jox na ko waaye junne nañ bari yooyu bu ñëwee li mu réglé ci kër gi ak kenn meeg man ngee defar neewoon na ko bis damaa bëggoon far nga toog ndax bu ma soxlaa seex moom ñu gën a jàppale waaye El Hadj Modou Diagne da ko wax ne ko loolu de bu ko seex yëgoon ci lay gën a baax. boobu Sëñ Tuubaa daa taxaw wax ko ñetti yoon taxaw loolu Sëñ El Hadj Sëñ Baye El Hadj Diop moo ak leeram Sëñ Tuubaa wax ko ñetti yoon ne ko yow de bu say maas bari woon man du sonn àdduna du sonn àllaaxira ndax kenn ku nekk ci gaa yi seex yi fañ jam rek fañ jam duñ ko weesu. bu doon keneen nag man Sëñ Tuubaa ne am na ñu nekk fii ci bi ci kër gi Sëñ Tuubaa dana wax li am. ana seen sëriñ ñëw ma foofu leen ba nu mu ñëw delluwaat nu ni nga ma téye ni laaj ko Cheikh loolu yow du loolu boo xoolee euh, Sëriñ Tuubaa boppam moo ko laaj El Hadj Modou Ndiaye nga dama bëgg nga toogaat far ci man mu jàpp ni yéen nga ñëm jëlal ma mu ne ko loolu comme yaa ngi ko la woon ak moom démb te yee jàll boo bëggee lii am laaj ak Cheikh. waaye du bu ñëw toogee noonu suñ tubaab sant ko sant ko gërëm ko kontaan ci baax a baax. Baye Hadj Diop Ndiaye moom itam 2011 ba 2014 turandoo bi nga xam ne moom mooy doom joo wax fépp ku fi muy Alhaji Bour Ndiaye gi nekk xalifaam yàlla na ak it des na sëñ sëñ Baye Mour Diop Baye ñoom Jili Diop ñoom ak doom boo xoolee kon dara ñun ñooy ñi nga xam ne moom ñooy ay bànqam yoo xam ne ci góor ñi ñu ci jàpp ñoo xam ne nga ko xam ne kenn ku nekk gis nañ ñi nga taxawee ci diine. ci njaboot ba léegi ngeen boo xoolee yan bi barke lool te njaboot boobu noonu moo def lii boo xoolee kon tamit moom barkeel na njabootam barkeel waaye sëriñ bi sax boo xoolee ni ngi ci yoon ndax lii ñu taxawoo ci taay bii nii leer na ma sëriñ si am bi ñun ñu jiite yëf yi xam nañ yëf yi jaar na jaar na yoon lool gën na yaatu lool te lépp boo xoolee sëriñ ñoo ko taxaw ngir fonk seen joxoon maanaam boobu mu jox leen seen bàyyi mu waral loolu kon dañu leen a baax a ñun la la jub yàlla baaxu sëñ bi la waaw daaw wala alhamdulilahi rabbil alamin